jërë jëf mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois sur la BP Actu ñu ngi leen di nuy bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam comme ni ngeen ko gisee nag tey ñi ngi Parcelles Assainies seeti kenn koo xamante ne ni ñu gën koo xam rek ci turu Serigne Bassirou ñas mu nekk koo xamante ne ni suñu borom may na ko xam-xam waaye yow teewul xam-xamam. daf ko jël di ko bokk ak doomu aadama yi di ko bokk ak jullit yi ngir saafara lépp loo xamante ne jafe-jafe la bu nekk seen diggante ñoom ak seen bopp ñu bàyyi leen ak moom mu nuyoo bu ko defee daal di ci waxtaan bi salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen waa BP Actu maa ngi leen di fayu nuyoo waaye tamit eh, di leen yëkkate ay nuyoo tamit di ko jëmale ci seen personnel bi yëpp. di am contentement bu baax ci déplacement bi ngeen déplacé ñëw pour waxtaan ak ñun pour dëgg-dëgg nekk mu nekk njëriñ loo xam ne dafay jëriñ askan wi yëpp ñu ngi leen ciy sant ñu ngi leen ciy gërëm bu baax. kan mooy Serigne Bassirou Niass. waaw Serigne Bassirou Niass nag euh, mi ngi dëkk Kaolack Madina Baye fa laa dëkk euh, fa laay gën di it nag. mais su ma ñëwee Dakar fii mooy sama place fii ci parcelle. alhamdulilah Serigne Bassirou Niass Kaolack la dëkk Medina Baye fa la juddoo fala la yaroo fa màggee fa la jàngee alxuraan ba tari alxuraan gannaaw ga ñu jàng xam-xam ba alhamdulilah yàlla may nañu ñu xam loo xam ne ni mën nañ cee tegtal nit ñi ci lu baax ñu mën cee jaar. ci loolu it lañ nekk gannaaw ga dugg nañ arab école arabe di jàng gannaaw ga dem nañ bitim réew pour mottali suñu jàng ba yàlla def na ñu am li xam ne ni mooy licence ñu ñëpp si fii ci Sénégal bañ ñëwee nag ñun ci suñ jëm bopp ñoo opte pour di dimbalante ak askan wi ci li nga xam ne ni mooy seen yitte ci wàll soxla yi nga xam ne dañ koy faral di am ak gar gaar yi nga xam ne day faral di di xew ci àdduna yu mel ni feebar yi dégg ak soxla yi àdduna yi ba taxoon loolu taxoon ñu dem jàngi gëstu biram baatin baatin nag suñ ko waxee mooy safaanu mooy mooy safaanu contraire u zahir mooy li ñu gis nii nga xam ne danga ko mën a gis xam lan la baatin nag mooy li nga xam ni yàlla daf ko nëbbu woon dégg nga xamal ko ñenn ñi loolu nag dañ koo demoon jàngi

moo xam ci ba ci bu njëkk ba mag ñi na ñoo ko daan am mais fu ne xale yi sax dañ koy am da gis koo xam ne nii amagul 30 ans sax waaye yàlla def na mu am problème boo xam ne nii daanaka mënta sëy ak jabaram wala mënta sëy lu bari wala sax am na ay problème yoo xam ne nii tax na dégg nga mënta sëy loolu nag ñun dañ ci am ay garab ay gàllaaj ay garab yoo xam ne nii garab yu am doole la garab yu baax la yoo xam ne euh, képp koo xam ne nii rek yàlla def na nga utiliser ko jëfandikoo comme ni ñu la koy waxee incha allahu taala da nga am li nga xam ne nii mooy li nga bëgg euh, garab yooyu nag dañoo boole ñetti façon feebar yoo xam ne daf koy faj yépp muy ki nga xam ne dafa amee impuissance sexuelle mooy danga ngaa amee wàllam tële da tële tële nag dafa bari ay façon da nga gis koo xam ne dafa tële parce que mënta sëy da nga gis koo xam ne mën naa sëy waaye li muy di bi dafa tuuti da gis koo xam ne mën na sëy waaye lim amee dafa tuuti ba nga xam ne mënta sax àgg ci euh, kim ko séqal ba mu yëg bànneex bu baax a baax loolu lépp ay façon euh, feebar la yoo xam ne dafa nekk ci biir tële loolu lépp ñun dañ koy faj am nañ ci ay garab yoo xam ne nii suñ la ko joxee nga utiliser ko incha allahu taala yàlla dana la tàqalee ak loolu waaye ba tey it ak li nga xam ne nii mooy hémorroïde hémorroïde ak euh, impuissance dañoo xaw a jege parce que soo jugee koo ci hémorroïde rek wala soo la hémorroïde sonale bu baax mag la yóbbu ci impuissance ndax hémorroïde dana waral awra bu tuuti ah, dégg nga dana waral it dégg nga gannaaw guy métti dana waral it seere dana waral yu bëri yoo xam ne ni hémorroïde daf koy def waaye alhamdulilah képp koo xam ne nii yàlla def na nga am problème yii nii moo xam danga nga amee feebaru néew kàttan soo ñu seet say incha allahu taala sa soxla dana faju ci diir bu gàtt su neexee yàlla waaye tamit képp koo xam ne da nga yàlla dafa def sa awra tuuti awra mooy li ngay sëyee soo dee dafa tuuti soo ñëwee ñun incha allahu dañu la dimbale ba nga am li nga bëgg mais su dee da nga amee euh, li nga xam ne nii mooy feebaru hémorroïde soo ñëwee tamit dañ la dimbale ba nga xam ne da nga ko ak hémorroïde boobu su neexee suñu borom incha allah waaye nag dafa jar ma ñu bëri dañ may wax ne ma. Euh, naka la ñuy utiliser affaire yi ma ne ko nag man samay garab maa koy utal sama bopp maay dem ba ci àll bi maa koy utal sama bopp euh, lem laaj tamit maa ko ciy def képp ku ma koy jox it maa koy joxal sama bopp moo tax dama bëgg ni nga xam ne noonu laa koy diglee pour nit ñi ko xam ne ñoo koy jël ni ma koy diglee ñu koy defee noonu comme sax ñu man cee am liñ bëgg incha allahu taala kon jar na ma wane ni nga xam ne nii. noonu lañ koy utiliser ku ko bëgg a jël dégg nga ni nga koy utiliser ku ko bëgg a jël mooy ah, da ngay jël demi kaasu verre demi kaasu verre nga tàngal ko ci baraada ba mu tàng soo ko tàngalee ba mu tàng nga nga def ko ci kaas verre bi soo ko defee ci kaas verre bi nga jël ci bii mooy faj li nga xam ne mooy hémorroïde nga jël ci bii maa ngi amee kudd bu ndaw bi mooy faj li nga xam ne mooy impuissance nga jël ci bii nga xam ne mooy yokk awra góor nga boole lépp daal def ci ndox mu tàng mi yëngal ko soo ko yëngalee ndox maa ngi tàng nga bàyyi xaar tuuti mu sedd ba sa gémmiñ ñeme ko su ko sa gémmiñ ñemee nga daal ut benn morso bu sedd wecc bu amul benn tilim tilim nga daal ko seggi soo ko seggee nga am ndoxam kese ndox mi ak sunguf bi séparé wu sunguf bi amul njëriñ la ca newoon ci njëriñ yépp dem na ci ndox mi nga séparé sunguf bi ak ndox mi naan li nga xam ne mooy ndox mi sunguf bi nga daldi ko sànni nga def ko suba ak ngoon képp koo xam ne ni def na lii lii ma wane nii képp koo xam def nga ko suba ak ngoon incha allahu taala su dee yàlla dafa def nga amee impuissance sexuelle moo xam danga tële wala sa awra dafa tuuti wala nga amee hémorroïde lépp loo mën a amee rek ñun composé nañ li nga xam ne moo koy faj ci sunguf yi incha allah soo ko utilisé su neexee suñu borom yàlla dana la tàqale ak loolu ci lu gaaw ci lu gaaw ci lu gaaw incha allahu taala. incha allahu taala mu nekk loo xamante ne ni ni mu ko expliqué leer na parce que d'habitude ñu bari dañ leen jox sunguf rek. ñu jël ko naan ko noonu mu def ay grain seen biir fekk fa feebar yokk fa beneen feebar. waaw xam nga sunguf moom li nga xam ne nii mooy li ci war sunguf kenn waru ko naan képp kuy naan sunguf rek yaa ngi ci danger yaa ngi indil sa bopp it ay feebar ay jàngoro yoo xam ne bis bu la daanee danga am problème képp koo xam ne yaa ngi naan sunguf jëlal sunguf si nga xooj ko soo ko xoojee seggi ko soo ko seggee mu des ndoxam kese nga naan ndox mi la newoon ci sunguf sa yëpp njëriñ la ci newoon yëpp mu ngi ci ndox mi nga naan ndox mi ndox du la wàññi dara waaye sunguf baaxul ci biir doomu aadama. Euh, Parcelles Assainies unité 17 ci euh, marché bi rek. nit ah, day oote ci 77 172 98 87. 77 172 98 87 su si ootee incha allahu man mii maa koy décroché maay waxtaan ak moom incha allahu taala. lu nekk ci réew wala ci période boo xamante ne nii période pandémie coronavirus ban jàngat nga ci def. waaw eh, euh, li nga xam ni mooy Covid 19 loolu balaa la boo xam ne yàlla ko wàccee ci àdduna yépp mu nekk loo xam ne nag yonent bi jàngale woon na ko sallallahu alayhi wa sallam ne balaa dana wàcc waaye saa yu wàccee rek li nga xam ne moo koy yëkkatiwaat li nga xam ne moo ñu ci musal mooy ñu ñaan yàlla ndax balaa óor bu wàccee rek ay bàkkaar la lan yanzilal balaa illa bi zan bi yonent bi mu ne balaa du wàcc mukk lu dul bàkkaar wala bi wala yurfao illa bi tawbati waaye duñ ko yëkkati mukk lu dul dañoo tuub rek ñun ñëpp dellu ci yàlla lii euh, nattu la boo xam ne balaa la boo xam ne yàlla ko wàcce li war ñun ñëpp mooy ñu dellu si suñu borom subhanahu wa taala tuub jéggalu ko. waaw kon nag. bàkkaar yi rek moom lañu war a tuub incha allahu suñ ko tuubee ba pare nañ bàyyi xel nag bu baax te it ci li nga xam ne nii moom la ñuy docteur yi di wax ñuy def li nga xam ne nii mooy di sol ay masque di laal gel comme ni ko waxee gannaaw ñoom yàlla def nañ seen xel nàcc ci wàllam santé seen xel natt ci wàllam jàngoro ak lay tax yow nga mucc ci suñu ko waxee rek lañ wax ñu ni nañ ko topp ndax seet sax yàlla moo ko digle ndax an nazaafatu min al iman set ci gëm yàlla la bokk. set ci gëm yàlla la bokk. Mm. ñu nekk ci jamono joo xamante ne ni jigéen mën naa doon ci ginnaaw góor ba ne sax mbirum ñun euh, yàlla may nañu dénk nañu xam-xam boo xam ne euh, waaye nag duñ ko defal koo xam ne da nga bëgg rek fo. parce que dafa am góor ñoo xam ne yàlla na ma yàlla baal dañuy ñëw rek ne xaaral kii ma dóor jàll dégg nga noot ko ba gañe ko su ko defee nga utiliser ko après daal di ko dem daal di dem dem sa yoon loolu moom wax dëgg yàlla duñ ko def parce que suñ ko defee bakkaar bi waaye képp koo xam ne daal da ngaa bëgganteeg nit mooy góor gi ku bëgg jigéen gi wala jigéen bu bëgg góor te farata rek tax laa jug dégg nga pour ngeen takkante rek tax laa jug incha allahu loolu moom su amee man soo ma seetsee incha allahu taala danaa la defal loo xam ne su neexee suñu borom dara mënta tax ba la nga bëgg noonu du am moo xam yow jigéen bi yaa ko bëgg ci góor gi dafay am moo xam yow góor gi yaa ko bëgg ci jigéen bi dafay am waaye nag li ma ci bañ rek mooy koo xam ne nii da ngay fo wala da nga bëgg utiliser ndaw si rek jàll dem sa yoon parce que loolu su amee man mi nga xam ne maa def loolu noonu loolu dafa am lu ma ciy topp te la ma ciy topp wax dëgg yàlla xajowuma ak moom. xajowuma ak hmm. moom. ki nga xam ne moo bëgg kële bëgg ndaw si moo xam góor gi yaa bëgg jigéen bi jigéen bi bañ. te yow li la tax a jug farata rek la li la tax a jug du fo li la tax a jug mooy da nga ko bëgg takk kooku soo ñëwee ñun dañ la dimbale dañ la defal loo xam ne mu neex ko mu naqadi ko dana la topp par force su dee góor gi moo bëgg ak jigéen bi comme ci man di doon ku bëgg moroom ka des incha allah suñu seetsee ñun danañ ko defal loo xam ne danañ la bëgg mu neex ko mu naqa daqadi ko dana topp sa gannaaw. mbir mbirim. mbirum déedéet duñ foqati dara ci kenn parce que loolu sax dafa jaaduwul li nga xam ne nii mooy li yoon rek mooy ku ci bëgg daal sa morom ka sa moroom ko bañ te yow li la tax a jug aayul ñëwal ñu liggéeyal la ñu defal la loo xam ne mu neex ko mu topp la mu naqari ko mu topp la yow jigéen jaa bëgg góor moom bëggu la te li la tax a jug. jàmm la ñëwal ñu defal la loo xam ne mu neex ko mu topp la mu naqari ko mu topp la incha allah waaye daal bëgguñ tooñ wala ñu def loo xam ne nii dafay eh, dafay nekk loo xam ne nii duñ xajoog moom. Hmm. ñu bàyyi numéro de téléphone fi jot a waxtaanee dina leen intéressé trop pour ñu ñëw ndaxte li fi waxtaanee yépp lu laal jeunesse bi la. ah alhamdulilah euh, suñ numéro 172 98 87 mooy whatsapp bi 77 172 98 87 ku ñu ci numéro yooyu dañu jot su neexee yàlla incha allahu ku ñu oo ci whatsapp bii dañu jot su neexee yàlla. ku ci parcelle ku ñëwal boppam na ñëw ci euh, Parcelles Assainies unité 17 ci marché bi rek soo ñëwee ba ci marché bi rek incha allah soo ñu ooyee ay ndaw dinañ ñëw. dem jël la ñu gisee incha allah su neexee suñu borom. sant yàlla bu baax lañu def di euh, digal nag bu baax mbër yi nañ def attention am na mbër moo xam ne yàlla def na euh, dama ko géntu am lu ma gis ci moom waaye gannaaw suñu waxee tur dañuy tooñ wala mu nekk loo xam ne mën na koo yàqal ay activité am wala mu wala ay. Euh, ñi nga xam ne ñoo ko bëgg ay fansam mer wala yu demee noonu moo tax duñ ko mën a tudd waaye daal mbër yu mag yi am na ci koo xam ne njoolul loolu waaye gàttu loolu it kooku na def attention ci dundam mi ci danger. waa ngi ci du ma du tudd tur nag ndax su ma tuddee tur danaa tooñ waaye daal li nga xam ne daal. Euh, mën naa ko wax mooy nañ def ñoom ñëpp attention euh, ndax ñu ngi ci danger te li ma wax nii man maa ko gis te su doon su ma gisee woon nag ka nga xam ne moom laa ko séqal moom la dana ko ko wax ne ko danaa ko ko wax mais wax ko ci télé ñëpp di ko dégg wax dëgg yàlla loolu rafetul. waa am na ñu ma ci yàlla booleel ñoo xam ne maa ngi jëflante ak ñoom. Hmm. Hmm. waa mbër mi moom xam nga wax ko daf du yoon waaw wax ko daf di tooñ daal. waaye wax ko xam nga nit ki soo ko bëggee dimbale da ngay dem déplacer dem ba fa mu dëkk nga oo ko ci sutura waxtaan ak moom loolu mooy dimbale mais dimbale taxaw ci télé bi wax ne diw mbër mbër diw nangam ak nangam waaye xam naa ne daal moom. gars yi song nañ ko te jékk ñu ngi koy bëgg a jékku te suñ ko jékku rek du baax ci moom loolu moom leer na ma moom te balaa yàgg su jugur ci boppam balaa yàgg da nga dégg mbër mu mag ñu ne am na tolof lii tolof tolof laa te loolu ñu ñëpp dana daj seen gémmiñ jërëjëf ñu ngi lay euh, jaajëfal yow it di am contentement bu baax ci déplacé bi ngeen déplacé ñëw fii seet suñu euh, di ñaan yàlla ya daje bi yàlla bu mu ne suñu mujj daje. Eh, yal nañu yàlla defal suñu bëgg-bëgg yëpp Sénégal yal na fi yàlla def jàmm eh, di digal Macky Sall it mi ngi ci yoon mi ngi góorlu waaye na góor góorlu bu baax ndax àdduna bi sonn nañ nit ñi sonn nañ taw bi bëri na ñëpp ñu ngi ci ay problème ñu ngi ci ay difficulté ñii am na ñoo xam ne seen biir néeg yi eh, dégg nga suñ wàccee seen tànk yi rek ñu ngi koy teg ci kaw ndox fa lañ nekk ñoom ak seeni jëkkër ñoom ak seeni i doom ñoom ñëpp te loolu moom am na part de responsabilité bu ko ci war kon na taxaw ci loolu bu baax a baax maa ngi ko koy dénk moom Macky Sall